أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا خير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد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 بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا غير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa adadi yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا خير ضيف أتى غير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا خير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد yaa xayra rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu wal mursalin sayyidina wa mawlana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala bokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bi nu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam noo ngi nuyu ñëpp ci nuyoob lislaam te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu di ndokkeel ñépp ci weer wu màgg wu tedd bi ñu nekk di ñaan yàlla tabaraka wa taala mu teewel waan ñoo ko déwén yu baree bari te mbooleem luñ ci def ci ay jaamu yàlla mu nangul na ko te fulal na ko te jéggal nu mbooleem rëcci rëcci yu ñu ci def di sant yàlla bu baax ci jataay bi nga xam ne muassasatul wafaay bi xuquqil imaan moo koy taxawe ci weeru koor wu jot di indi ay woroomi xam-xam ngir seddoog ñoom seen xam-xam jublu ci tasaare xam-xam ak jariñ jullit ñépp ci noonu nag lañ dalale kenn ci ñun suñ mbokk sëriñ maam Thierno kann nga xam ne kenn la ci dëkk bi ngir ñëw séq ak ñun thème bu am solo boo xam ne di ko fàttalee lu ama am njariñ la lu ama am solo la moo tax Al Wafa tànn thème bu am solo boobu ngir waxtaane ko tey France foofu it na fa alquran ginnaaw bi mu jóge fa dem ci magam jum bokkal lépp muy imam Serigne Talla Fall ci jannatul mawa foofu it jànge na fa alquran imaam Serigne Makhtar si kon foofu ci Touba la mokkale alquran ginnaaw bi mokkalee alquran it ba tey foofu ci Touba la tàmbulee njàngum xam-xamam ci loxol boroom xam-xam bu mag boobu Serigne Cheikhum Serigne Mountakha moo njàngum xam-xamam ba li ëpp ci téere yiñ baaxoo jàng ci réew mi foofee la ko jànge ginnaaw loolu nag la dellu ci dëkkub cosaanam di keneen jobb ngir jàngale fa lim jàng te xam ko muy jàng alxuraan ak jàngale ko ci 2014 ci la dem ci dëkkam ngir jàngale fa alxuraanul karim ba ci la fa jóge dellusiwaat Touba wéyal liggéey boobu muy jàng alxuraan ak jàng kon jàmbaar la moo tax kuréel gi tànn ko ngir mu war a séq ak ñun jataay bi ci thème bu am solo bi ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu defal ko tawfeex ba lim bëgg a leeral lépp mu def ko na mu gën a kawee njortam salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا خير طيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا غير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا خير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا غير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد بسم الله الرحمن الرحيم يا خير طيف أتى بال... الحمد لله الذي خلق من الماء بصرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa xabibina muhammadin alqaail taallamu min ansaabikum maa tasiluuna bihi arxaabakum salawaatullahi wa salaamuhu alayhi wa ala aalihi wa saxbihi ajmain summa ma baad fa assalaamu aleykum wa wa barakaatu mbokki jullit yi fi teew ak ñiy jot ci sunu kàddu ñoo ngi leen di nuyu ci nuyoo boobu ñu yàlla tànnal muy nuyoob lislaam di nuyoo bi gën a làmboo cofeel ak worma jëm ci seen jëmm yu tedd yi di tàmbali nuyo bi ak siyaara bi ci Cheikh Mahamadul Basir mi nga xam ne moo nekk ci bopp njaboot gi waaye di ko jaare ci sunu buntu di sëriñ xaadim mbàkke moom sëriñ amsatu moom borom daarul muxti waaye di siyaare mboolem njabootu si amsatu mbàkke gi yépp di siyaara sëriñ Seexuna mbàkke moom sëriñ amsatu ak mboolem njaboot yépp sëriñ xaadim mbàkke moom suñu xalil ak sëriñ ibrahima jóob ak mboolem ñi nga xam ne teew nan ci jataay bi ci njaboot gi yépp nuyoo bi nuy nuyu waa dëkk bi ñoo ngi koy teg ci seen loxo mu àgg ba ci mboolem koo xam ne rekk mu ngi ci barab bu làab bile di am mbégte lool akuk cant ci teew ci barab bii nga xam ne barab la bopp képp kuy doomu daara walla ngay kuy yëngu ci xam-xam walla ngay yittewoo ak mbaax ak tasaare ko barab la bum xam barab la bum bàyyi xel ngir ay taxawaayam yu yaatu yu tasaaroo masha allah yàlla yàlla dolli muy mu assasatu alwasa alwafa bi xuquqil iman eh, di am mbégte lool ci teew ci jataay bii di jataay boo xam ne képp koo xam ne yàlla dogal na mu ñëw fi teew ci dana xam ne mbooloo mii mbooloo la moo xam ne li nga xam ne ci la ne woote lépp ci ak xam la tegu akug ràññee kon jataay bu mel noonu dana am mbégte ak ferte ci teew ci di ci siyaar tey sant itam sëriñ Cheikhouna Mbacke moom sëriñ am sëriñ mi nga xam ne euh, moo sabab suñu teew ci jataay bi ak sunu sang bu baax yi nga xam ne ñoom lañ ci doon jokkoon ku ci mel ne euh, sëriñ Basiiru Mbàkke ak sëriñ Koso sëriñ Muhammad Mbay ak mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ séqal liggéey bi yépp ñu ngi leen di yëgal ne daal jataay bi doon na jataay bu nu yàgga bàyyi xel daan ko topp daan ci jariñu ba bari na loo xam ne xam nan ko ba di ko jot liwaat te mi ngi sababoo ci jataay bii jataay bu barkeel bii muy jataayu mu assasatu alwafa bi xuquqil iman kon ginnaaw bi nu nuyoo ñëpp te di ziyaara eh, tomb bi nga xamante ne moom lañ ñu jox ngir ñu waxtaane ko ni ko mbokk mi waxe sànq day tomb bu ama am solo ndax dafa jëm ci loo xam ne kenn kenn mënu koo ñàkk walla kenn ñàkku ko mu di ay bokk te bokk googee ne ñaar yooyu ci la waxtaan wi jëm muy bokk ci wàllu askan te mooy seetu rahim waaye itam bokk ci wàllu diine ni nga xamante ne noonu lan fas yéenee tëre la waxtaan wi moo di ne dañ koy tënk ci ñeenti tomb ndax jubluwaayu mooy kenn ku nekk ci ñun walla kuy diglu xam jokk ak mbokk ni mu doone lu war ci bépp jullit waaye itam xam itam naka ngay jokke sa bokk ak naka nga koy rafetale xam itam lan mooy melokaanu mbokk dëgg ak xarit dëgg itam naka la war a mel waaye itam ngir am cawarte ak yokk sa yitte ci jokk sa mbokk tax na tomb biñ ci mujje mooy meññan mi nga xam ne jokk ak mbokk dana ko juru kon ñeenti tomb yooyu la muy warteefu jokk ak mbokk ak jokk ak mbokk naka las ko war a defe ak itam yan melokaan mooy melokaani mbokk dëgg ci mujj gi ñu ñëw ci meññet mi nga xamante ne suñ jokkee mbokk gi ni mu waree dana ko jural mbokk gi waaye dana ko jural société bi itam kon mbokki jullit yi noo ngi fàttali suñ bopp te di fàttali ne wartif la ci bépp jullit muy jokk ak mbokk te di ko rafetal ndax ginnaaw bi joxe àqi yàlla borom bi subhaanahu wa ci jaamu ko te bañ ko bokkal ak dara jàllee àq ja ca tege te gën a diis ci àq yi mooy joxe aqi mbokk te lool bu ñu delloo ci alquran ak sunna danañ ci gis ay tegtal ñu mën caa tudd rekk lim wax ci sóoratu nisaa bi mu diglee ne dee leen jaamu yàlla te bañ koo bokkaale ak dara ndigal la mu ca teg moo di te ngeen di jokk ak mbokk te tàmbalee ko ci seen ñaari wayjur yi nga xam ne ku bokk ak nit ñooma tax ndax wa bil walidayni ihsaanan wa bisil qurba ku ne xam ne ne ñaari wayjur ci ay mbokk la bokk waaye tudd gim tudd ñaari waajur jiital ko digal la nga rafetal ci ni ngay ànd ak ñoom teg ci ay bokk digal la nga rafetal ni ngay ànd ak moom lool day fedd di dëgëral rekk wàccuwaay bi nga xam ne ñaari waajur am na ko ci biiri bokk waaye ndigalal jaamu yàlla te bañ koo bokkaale ak dara ndigal la ca yàlla teg mooy di jokk bokk te di ko rafetal naka noonu am na ku masalaaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nan laay def ba mën a tàbbi aljanna mu ne ko dangay jaamu yàlla te bañ koo bokkaale ak dara tey taxawal julli di joxe asaka di jokk ak mbokk te di ko rafetal kon alxuraan ni mu àqi yàlla ak àqi bokk noonu it la sunna su bi sallallahu alayhi wa sallam lënkalee àqi borom bi subhaanahu wa ak àqi mbokk kon mu mel ne àqi mbokk lu foora foor la te it ci bépp jullit mu bàyyi ko xel te di ko rafetal mbokk yi jokk ak mbokk day sabab ak texe waaye itam sàggane say bokk day sabab ak texee di wala yaasu billah ndax yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne ne kuy dog ak mbokk du mën a tàbbi aljanna kon loolu doy na sëkk ci xam warteefu jokk ak mbokk ci bépp jullit ginnaaw bi ñu xamee ne jullit bu nekk borom bi subhaanahu wa taala da koo sant muy jokk ay bokkam te di ko rafetal ñaareeli tomb bi mooy mbokk googu ñu war a sàmm rafetal ko ana naka las ko war a rafetale mbokk yi jullit bu nekk li war a jiitu mooy war naa yittewoo xam askaram xam ay bokkam ndax loolu mooy tax mu mën a jokki bokkam abu hurayrata radiallahu anhu nettali na jële ci yonante bi sallallahu alayhi wa mu wax ne fexe leen xam ci seenu askan li tax ngeen mën a jokk seenu bokk taallamu min ansaabikum ma tasiluna bihi arxaamakum jokk ak mbokk anam yin ko mën bare na lool ci tudd fukk ak ñeent rekk mu yóbbaale yi ci des muy ay tomb yoo xam ne danañ ko mën a dégg ci li nga xamante ne di dinañ ko tudd insha allah kon fukk ak ñeent yi bokk na ci liy jokk ak mbokk te di ko rafetal bu njëkk bi mooy di tàmbalee ci ki la gën a jege ci mbokk ndax arab yi dañuy wax ne al aqrabu al awla eh, ku gën a jege rek moo gën a yaay te noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallama jàngalee ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallama jàngalee mooy ngay tàmbalee ci ki la gën a jege ci mbokk am na ku ko masalaaj moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ne ko ana kan ci nit ñi laa war a jiital ci sama jokk ak samay njekk ak samay rafatal mu ne ko tàmbaleel ci sa yaay baamu ko ba muy ñetti yoon ne ko teg ci sa baay teg ci ki la jege ci mbokk bu weesoo nga teg ci ki la gën a jege ci mbokk muy wéy kon li jiitu mooy kiy jokk ak mbokk na tàmbalee ci ki ko gën a jege ci mbokk ñaareel ba ci ni ñuy jokke ak mbokk mooy su la nuyoo nga fay ko su feebaree nga seete ko su faatoo nga gunge ko su la wooyee nga wuy ji ko su tislee ba wax alhamdulillah nga ndokkeel ko ne ko yarhamukallah ñetteel ba ci ni ñuy jokke ak mbokk mooy di yaatal sa xar kanam saa yoo dajeeg sa mbokk ndax yaatal sa xar kanam mooy li nga xam ne nit ki mën na koo dajal ci ay bokkam waaye laneen lum mën a doon moo xam ab jox-jox la moo xam laneen la dana jafe lool mu man koo matal waaye doon na lu yomb waaye noonu it la doone point bu am am solo te di ci diggante

ni nuy jokke ak mbokk mooy di dimbalant waaye itam di watt ñaw ko foo fekk diggante bu nara yàqu nga taxaw ba ak defaroo am diggante ca ñaari bokk yooya mu doon ñaar am solo muy muy baatu àll albirru ak at taqwa ndax li ñuy wax lépp eh, ci lay dellu ndax bu buñ xoolee nit ki ñaar yooyu rekk moo ko séq muy fexe ba li rattaxal diggante nit ki ak i bokkam lépp génnut baatu albirru mooy ak mbaax kon ñaar yooyu bu ci kenn ku nekk ci mbokk gi nekkee di ca jàppale moroomam moom ñagas mboolem luy tax diggante ak i bokk ñagas mu ngi ci baatum al udwaan kon ñaar yooyu lu mat a bàyyi xel la lu ama am solo la te mooy ay bokk dañuy dimbalante ci lépp luy lu baax wallahi ak xilal rahim muy ñaari baat yooyu nga xam ne moom lañ dugal ci biir at taqwa ak albiru euh, laaj nan omar ibnul aas radiallahu anhu nekkatu fa kon mbañum rus mën nañoo wax ne mooy genn wàllu diine omar ibnul aas bi ñu ko laajee lan mooy mbañum rus ana lan la tontu ñaari baat kott la tontu yoo xam ne ak moom waaye bàyyi xel say bokk di jéem a joxe àq yi nga xam ne moo dox sa diggante ak ñoom kon ñaar yooyu lu mat a bàyyi xel la te mooy ana lan la ca teg lam ca teg mooy te ngeen di defar diggante yi fattaqullaha wa aslihu saata baynikum ba tey ci suuratul xujuraat te ngeen di ragal kon ñaar yooyu rekk mooy li fi nekk mooy rafetal sa diggante ak sa boroom te la ca jiit mooy taqwallahi ak rafetal sa diggante ak say bokk te loolu mooy silatu rahim mooy albiru mooy ak mbaax mooy li gën a foor ci li nit ki di denc mu di ko jariñ ëllëg ginnaaw bi mu ragalee yàlla fexe ba am cantuk nit ñi ngir sag mën a rafetal mooy li gën ci li nit baadi juróomeel ba ci ni nuy jokke ak mbokk moo di di wattandiku mboolem luy yàq ak bokk te yi yàq ak bokk suñ ko bëggee xam ginnaaw bi rek loole luy yàq ak mbokk la ginnaaw bi mu diglee ne ni ngeen yëwanal mbokk gi euh, ba fa saaro yam la ca jiitu mooy xeebaate mu yàb la te yonent bi sallallahu alayhi wa daana wax ne nit ki di xeeb mbokkam doy na sëkk mooy di woowee sa mbokk turwu ko neexul ak di topp njort ak dëggal ko topp njortu ak dëggal njort lislaam ni muy tere mooy nga topp njort ak nga dëgg wax wala jëf loolu la lislaam di tere te mu doon loo xam ne euh, day yàq ak mbokk kon topp njot ak dëggal ko ak yëddu ak lu luñutu lu sa yoon nekkut maanaam ay vie privée juróom benneel ba ci ni ñuy sàmme ak bokk moo di di fegal sa bokk njortu lu ñaaw akuk réeroo doone nun ko gise baax na njort kon bokk na ci niy rafetale ak bokk mooy di fegal sa mbokk njort lu ñaaw akuk réeroo ndax noonu kët ndax bi mu seetloo ne delloo gim ko ko delloo jaaxal na ko daa daal di dalal xelam musal ko ci xalaat yu ñaaw ne ko dara taxul ma delloo la ko lu dul fekk ak réeroo ak musal sa mbokk ci muy ñaaw njort ci yow am na guddi sunu yaay safiya radiyallahu anha wasallam bokkam ci njort lu ñaaw ak bàkkaar ya ca mën a topp ginnaaw ba ni leen kii kat sama soxna safiya ñu ne ko subhaanallah yow mi yàlla said bu ngeen fi jógee mu am lum sànni ci seeni xel kon foofu yonent bi sallallahu alayhi dafa fegal boppam njort lu ñaaw ak réeroo bari na waana ñaari bokk yoo xam ne kenn ku nekk yaa ngi jàppal sa moroom te nekkate yóote la nga foog amul te fekk ne daa am koo xam ne am na nu defe walla am nu waxe te bayu bayu ca xel kon loolu lu mata lu ma lu mat a bàyyi xel la moo tax fekk ak réeroo ak njort ak sàmm ak mbokkoo moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne bu ngeen nekkee ñaar ci ab jataay bu ñaar ñi bero bàyyi kenn ka ci lu dul ndigalam ndax loolu ma neex laay waxee nu ko gaa yi gisee baax na nu ko mbokk yi gisee baax na déet lislaam jëngalewul noonu lislaam dalaa digal ngay jéem a musal say mbokk ci njort lu ñaaw ak bàkkaar yi ca mën a topp loolu ci boppam dafa ci ni ñuy mbokk ak mën a ak mbokk euh, juróom-ñaareel ci ni ñuy jokke ak mbokk mooy di wattandikoo meroo ak iñaanante te kenn ku nekk lu yàlla may sa mbokk nga nangu ko te yéene ko ko yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne bu leen di iñaan xam leen ne jaam yi wa ma ajalaka an qawmika yaa Muusa kon njàmbar dëgg ak yitte ju kawe mooy mbaax gi na feeñ ci bokk gi xam-xam bu bari bi na feeñ ci bokk gi am am bi na feeñ ci bokk gi connaissance bi lépp na feeñ ci bokk gi bokk na it ci li nga xamante ne des na ko jokke ak mbokk mooy kenn ku nekk dañuy wax ne réussite dëgg mooy mbokk gu réussite réussite dëgg mooy mbokk gu réussite lool sëriñ Tuubaa radiallahu anhu moom mboolem ñi nga xamante ne jamonoonte woon nan ak moom li nga xamante ne bind nañ ko te seereel ko ko mooy defar ay bokkam yittewoo leen ba ku nekk ci ñoom jàkk waaye noonu itam la defare ay jàmbur euh, sëñ Mbay Jaxate rahimahullah warda wax na ko ne ko defar nga say bokk defar ay nga kon kooku yitteem weesu woon na boppam kon bokk na ci liy rasal ak bokk sa yitte nga weese la ko sa bokk rek wala say doom wala ñi lay gën a jege rek yaatal ko ba mën a jot juróom-ñetteel ba ci ni nuy jokk ak mbokk moo di nga nekk kuy jokk ak mbokk bañ a doon koo xam ne day fay la tekk baa sax ngay doon koo xam ne day dog ak mbokk ndax mbokk yi ñett yooyu rek moo am mooy alwaasilu almukaafi wa alqaati waasil mooy ki nga xam ne moom euh, li ko war rek ci ay mbokk ay mbokkam dañuy manqué li ko war a def bu naan jokk mbokk dëgg-dëgg kooku mooy kiy jokk mbokk waaye ki nga xam ne nag lu ko waay defal ci lu mbaax ci njekk ci mbokk gi dana la ko fay waaye foofa la yam waaye ca ñooñu itam mooy def am na lu ko gën ku mbokk ak ki rafetal ak mbokk kooku taxul mooy ki nga xam ne bala mu laa woo dana kël gi ndax moo la mujjoon a woo ndax ba nga la wooyee ñëwoon nga wala ñëwoon ki nga xam ne day jokk mbokk dëgg-dëgg yépp moom du ko xool te noonu yi la ko sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu jàngale sëriñ bi nim jàngalee mooy nit ki na ne na defar boppam ba mën a ànd ak i bokkam gën a néew mën a ànd ak mbokk yi mooy li wax ne bali atabir min nafsikal aadaaba wala tutaaliban bihil asxaaba gone tey wormaal mag wekk ko di digle lu baax tey tere ab safaan ñeent yooyu yi ku ko dul def bokkoo fukkeel ba ci ni ñuy jokk ak mbokk ni ñuy dundale ak mbokk di ko ci rafetal mooy di seet di siyaarante tey waar muy siyaare gi ak laabire gi ak waar gi lu ci ne ci waxtu ak barab ba mu yelle ndax loolu mooy njàngaleem lislaam bu dee ci seeti gi am na ñetti waxtu yoo xam ne lislaam day jàngale ne moom waxtu yooyu tëmuwut nit ki di ci seeti mbokkam lu mel ne njëkk fajar ak njolloor digg bëccëg ak ginnaaw gee waxtu fatu kon loolu lu mat a bàyyi xel lu ne baax na ci mbokk gi itam lu ci ne warees naa bàyyi xel e, waxtu wi nga koy def ak barab bi nga koy defe ndax ni ngay waxeek sa waajur war naa wuuteeg ni ngay waxeek euh, sa doom ni ngay waxeek sab jarbaat noonu naka noon ni ngay waxeek sa sëriñ waxeek ki nga yilif walla sab dong kon kenn ku nekk am na nu war a wax moom ak fu war a wax moom ngir li nga bëgg mu saafaru ci moom mën a am na loo xam ne waxtaanu biir néeg la ci néeg bi la war a yam am loo xam ne waxtaanu ëtt la am nag lu nu war a waxtaane ci pénc ma ndax ñett yooyu soo ko bàyyiwul xel ki ngay waxal fi ngay waxa ak ni ngay waxa ak moom lu ko mooy day day jur saafara su jur jàngoro al imaamu saafi rahimahullah daa biire ko ci sutura ci sekkare kookee day laa biire na mbokkam te jëmul personnalité te bàyyi ko ak dignitéem bàyyi ko akub sagam ndax da koo laa biire yedd ko waar ko jubbanti ko ci sutura lu feeñ ci am kooka teg na ko gàcca jam na personnalité te dana jafe la muy saafara saafara kon bokk na ci ni ñuy sàmm ak bokk nekk ci loo xam ne naka sudul noonu la fukkeel ba ak benn ci ni nga xam ne dees na ko jokke ak bokk ba mbokk gi rafet mooy ëllëgam perte aveniram te li ko waral mooy teel a ñàkk ñu ko taxaw ci biir mbokk gi kon faw mu am ci mbokk gi ñoo xam ne dañuy jël ay responsabilité ci waxtu wun ko bi mu war ba tey lool misaal mi du sore mayees na koo jël ci borom daarul moxti ak sëriñ Tuuba radiallahu anhu ku ne xam ne sëriñ bi radiallahu anhu dafa jëloon ay responsabilités ci borom daarul moxti ndax wax na ne moo ne ko baa ba ne ko bàyyil mësta tàqalikoo ak moom ci ak ndawam ba ci ak magam wax ne lu nekk ci moom moo ko ci def ba mu des fit ak ngor ga wala fit ak jom ja kon day mel sëriñ bi moom dafa jël ay responsabilitéem ci borom daarul moxti taxawu ko nim ko war a taxawoo loole itam moo mooy dox ba bis bi borom daaru war a sëriñ bi ci njaboot gi la sëriñ bi defoon ci moom ci ab taxawaay mu man koo defaat ci njaboot gi ba tey jii euh, nii nga xam ne Baay Cerno jàngal nañ ñu ba ñu ne ar yar nañ ñu ne nër yee nañ bañ ne jar ak taxawaay euh, taxawaay bi borom Daaru Muxti am mu man koo am te ñett yooyu muy yaru ak jàng ba ne ar ak yeewu ba ne jar ñett yooyu gépp askan woo xam ne ñett yooyu euh, askanu la ëllëg kon loolu misaal la ci euh, ay bokk kenn ku nekk dafa war di jël ay responsabilité ci ki nga xamante ne war naa jël ci moom ay responsabilité ngir bu ëllëgee mun a am mu mën a am taxawaay boo xam ne euh, bokk na ci ni nuy jokke ak mbokk mooy bañ a dencal sa mbokk dara ci loo xam ne lu ko mën a jariñ la ci sunu imaam mu dëkk bële di këne njobb muy sëriñ Muhammad Sàmb yàlla na fi bokk yàgg te wér ci laa biiram akuk matam akuk mën a yaatalam ak bëgg gi xam-xam tax na waxtaan yii ñuy def tey teel nañu cee woo lool di ñu ci laa biire ñu ngay wax ne ñun loolu du mën jàpp ndax ñaar a ko waral benn muy suñ ëlloo guddul ñaareel ba mooy mënuñoo wax ci mbooloo waaye bëyuma naan wax ci mbooloo kat dee ko ñeme das koy miin ba tey tax na euh, lu baree bari yombalal nañu ko kon loolu misaal la rek ci képp koo xam ne sa mbokk la muy ndaw am loo xam ne xëy na gis nga ko te moom gisu ko nga gis ne lii boo ko ci laabiiree bu ci nekkee ëllëg njariñ la mën naa yaatu law lëw ba dañ bokk yépp nga taxaw temm ci di ko ca laabiire te bañ a yàkkamti ca résultat ba mooy nosu mooy nosu ak booloo boole pexe yi boole yéene yi lu ama ama solo la ci biir ay bokk ndax mbokk gi kii yàlla ko jox kàttan kii yàlla jox ko xam-xam kii yàlla jox ko am-am kii yàlla seen pexe yooye te nosu dana tax lépp loo xam ne bëgg nañ koo sottal ci biir bokk gi ñu man koo sottal loolu it mën nañ joxe misaal sëriñ ca kënin jobb yàlla nañu ko yàlla fayal ci xam-xam ba ak gis-gis bu sori ba ak làmmiñ wu barkeel ga macha allah ak yittewoo gum yittewoo ay bokk ba tax mboolem loo xam ne bëgg nañ ko ca dëkk ba ña nga cay dox jëm ca ba lu baree bari ñu taxawal ko ca dëkk ba bokk na ca jumaa joo xam ne ëpp na téeméeri million ak ñeent fukk te boppam ak lam ak man am waaye boole pexe yi boole yéene yi boole am am loolu lépp itam bu amee ci biir bokk gi te mu assasa amut itam du tax li nga xamante ne bokk yi bëgg nañ ko euh, ñu mën koo ñu mën koo am kon nosu lu yitteel lislaam la rawatina ci biir bokk nga def lu mu tere nga bàyyi lu mu dogal mu neex la sa mbokkum taalube soppante wóolante tey dimbalante bi ñu ci yitteel nag mooy sa mbokkum jegeñaale mu ne sa mbokkum jegeñaale da ngeen bokk yéene bokki pexe bokki am-am kon boole yéene yi ak pexe yi ak man-man yi ak am-am yi lool bokk na ci ni ni sàmm ak bokk te di ko ko rafetale euh, fukkeel ba ak ñaar ci liy dundal mbokkoo gi mooy su la sa mbokk lebalee njekk ak tiraanga nga yëg ko te sant ko ñu bari nag bala ñoo sant seen mbokk daa fekk dundatul te xéewal yi yàlla di taxaare ci mbokk gi bokk na ci li koy saxal mooy ñi ñuy defal njekk ñuy yëg njekk gi tey sant ndax dolliku xéewal gi borom bi subhaanahu wa taala ci alquran da koo aj ci cant gi te xéewal yi la yàlla di defal muy jaare sa mbokk xéewal la yoo xam ne ca dëgg-dëgg ñu ngi bàyyi ko ci borom bi subhaanahu wa taala te nim ñëwee ci wax yonent bi sallallahu mu wax ne koo xam ne du sant nit li mu tekk rek mooy du samt yàlla kon bokk na nii rafetale ak mbokk te mu doon lu mata bàyyi xel mooy lu baax njekk lii la sa mbokk di defal lum néew néew na ko wan ak yëg ba mu yëg ne yëg nga lii nga xamante ne defal na la kon ndax loolu dana yokk cawarte ak ñiy jéem a dimbalante ñi jéem a def lu baax ci bokk gi donte yàlla rek moo tax ñuy def waaye sant googu nga leen ngay ngay sant yàlla waaye di leen sant di ko yëg lool da yàlla dajee aj euh, dolliku xéewal googu nga xam ne moo war a tasaaroo ci mbokk gi kon loolu mel na ne mën nañ koo doyloo ci ñi nga xamante ne noonu la war a jokke mbokk euh, ñetteel tomb bi kon mooy mbokk dëgg walla sax ñu ne xarit dëgg ana naka la war a mel walla yan melokaan ñooy ay melokaanam mbokk dëgg naka lay mel sëriñ bi radiallahu anhu nee na mbokk dëgg xarit dëgg lu néew néew la ci jamono waaye itam lu jafe xam la wal aqu xaqan wal qalilu sidqa an daru min kulli qalilin xaqa nee na mbokk mooy koo xam ne ku la gis gis ko loo nekk mu ànd ko yow moo xam muy naqar da koy ànd ak yow ca nam ko war a ànde ak yow moo xam muy bànneex da koy ànd ak yow ca nam ko war a ànde ak mbokkam fa huwa allazi ka qawli man jalal xalak inna aqaaka alxaqa man yasaa maak nee na itam mbokk dëgg xarit dëgg mooy koo xam ne léeg-léeg sax danay lor boppam ngir yow mbokkam nga jariñu mbokk dëgg xarit dëgg mooy koo xam ne léeg sax dinay lor boppam ngir yow mbokkam nga jariñoo nee itam bokk na ci melokaani mbokk mooy koo xam ne su la jamono jàppee day àttana ñàkk léppam ngir delloosi la ba nga nekkaat mën a siggiwaat ndax léeg-léeg am ci mbokk gi koo xam ne jafe na lool mu génnati walla ab tànkam sori ngir ay mbir yu ko waral waaye mbokk dëgg foofu la lay fekk dana taxaw taxawaay bu rafet ci biiri mbokk gi ba nga mën a génnaat àndaat ak say bokk mbokk dëgg sëriñ bi wax ne taxawaay bu mel nii lay taxaw ci mbokkam wa man yadurru nafsahu liyanfaak wa man ida bu zamani saddaak sëriñ bi wax na ne mbokk dëgg xarit dëgg mooy koo xam ne dana la xamal sax lu ñaaw nëbbal la ko ngir yëkkati la ak bañ ku la yàpp ak bañ ku la xeeb kon mu mel ne safaan bi warul am te léeg-léeg mu am ci ay bokk koo xam ne dana la xamal téeméer yu rafet waaye yooyu mooy ki ko gën a xam waaye du ko mës a tudd mukk benn bu ñaaw rek lay xam ci mbokkam eh, ne siiw donte day feeñe ci kudu moom dana na siiw ngéejoo lu ñaaw loolee mu xamal mbokkam mu tasaaroo ci biir mbokkam kon loolu lu war a wattandiku la ci biir ay bokk mbokk dëgg daal ni mu war a mel mooy koo xam ne dana la xamal sax yu ñaaw ay sikk ay manque-manque yoo xam ne su ko feeñalee mënees na la mànkil walla sa daraja wàcc wala ñu xeeble ci sa biir bokk mu nëbb ko ba ñu yëkkati la ba nga xamante ne da nga sax ak taxawaay ak bët bi nga xam ne moom nan la doon xoole ci biir mbokk yi ñu continuer di la ko xoole kon loolu taxawaay la bu ama am solo boo xam ne ay mbokk waran cee euh, bàyyi xel kon daal mën nañoo tënk loolu ci melokaanu mbokk dëgg xarit dëgg te mooy koo xam ne loo nekk mu nekk ca ku la gis gis ko loo nekk mu ànd ca ak yow nam ca war a ànd ak yow léeg sax ngir bëgg nga jariñu dana tax mu lor boppam dana la xamal itam lu ñaaw nëbbal la ko ngir yëkkati la waaye du def mukk safaan ba te mooy xamal la yu rafet di ko nëbbu waaye di la feeñalal ay yu ñaaw donte lu néew la ngir suufeel la ci sa biir bokk kon euh, loolu mooy ñetteel tom bi te mooy melokaanu mbokk dëgg ak xarit dëgg kon dañuy ñëw ci euh, nataiju sirat rahim maanaam euh, jokk ak mbokk yi nga xam ne mën na koo jur ci ay njariñ yenn yi dellu ci diine yenn yi dellu ci société bi walla ñu ne mu dellu ci suñu dundug àddina ndax jokk ak mbokk borom bi subhaanahu wa da ko defal ay njariñ yu baree bare yoo xam ne dana ci juddoo muy meññat moo xam ne jullit bi dana ko wette ci jokk ak mbokk su ko defee ne ko borom bi subhaanahu wa taala santaane la te jiitu mooy am eh, njëggaluk borom bi subhaanahu mooy borom bi jéggal ko mboolem ay rëcc-rëccam ak ay bakkaaram loolu tegtal bi mooy am na ku ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko man kët alku xaw ma fu ma jëm ndax def naa bàkkaar bu rëy rëy boo xam ne xaw ma nan laay def ba sama boroom jéggal ma ko mu ne ko ndax sa wayjur wu jigéen mi ngi fi mu ne ko nekku fi mu ne sa wayjur wu jigéen woowee ndax magam walla rakkam mi ngi fi mu ne ko waawaaw mu ne ko demal nga jokk sa mbokk ci moom nga rafetal ni ngay ànd ak moom kon mu mel ne am na ci biir bàkkaar yi bàkkaar boo xam ne lii tax yàlla jéggal ko nit ki mooy mu def lii ñu doon waxtaane te mooy jokk ak bokkam te di ko rafetal ñaareel ba ci meññatum jokk ak mbokk mooy jokk ak mbokk dana musal nit ki ci deewin deewin wu ñaaw te loolu yonente bi sallallahu alayhi wa moo wax ne man sarrahu an yamudda lahu fi umrihi wa yuwasia lahu fi risqihi wa yudfa anhu miitata suui falyattaqillaha walyasil rahimahu nee na képp koo xam ne bëgg na yàlla musal ko ci deewinu ñaaw na bàyyi xel ñaar yi te mooy yi waxoon ci njëlbeenu waxtaan wi mooy taqwallaahi ak silat rahim muy ñaar yoo xam ne ci lan tàmbalee woon wax ne mooy lubbul mawdu mooy taqwallaahi ak silat rahim lu ju bari wax ji ci lay dellu mu ne ko ragal yàlla sa borom ak jokk ak mbokk mooy liy tax nit ki boromam musal ko ci dee yu ñaaw euh, ñetteel ba ci li nga xamante ne jokk ak mbokk tar di ko rafetal dina ko jur mooy day tax nit ñi baalante yomb leen maanaam comprendante ñaar danañ jote léeg-léeg ci gone yi seen yaay day day ñëw ne leen xanaa xamoo leen li ngeen bokk nga xam ne ca saasa day am beneen yëg-yëg bu bees boo xam ne dañ koy yëg di yëg-yëg bu wane ne ñoom kat lii war na ko mën a baalante seen diggante kon jokk ak mbokk euh, bokk na ci li nga xamante ne dana ko def ci biir ak mbokk wala ak mbokk dana ko jeexital mooy nangoo baalante yenn ñoom tey Euh, ñeenteel ba ci yi nga xamante ne jokk ak mbokk dana ko jur mooy jokk ak mbokk day dolli barke ci alal waaye day guddal aw fan itam te ñaar yooyu yàlla dafa mooñaale ak doomu aadama mu bëgg ko te xër ci lool muy fanu gudd lool ak alal ju bari te barkel ñaar yooyu nag lii ñuy waxtaan muy jokk ak mbokk da koy jural nit ki muy fanu gudd ak wërsëg wu yaatu te barkel bokk na ci meññetum jokk ak bokk mooy jokk ak mbokk day dëgëral relation bi nga xamante ne uh, moo dox diggante nit ñi jokk gi ni jokk seenu bokk di ko rafatal di siyaarante di bàyyante xel loolu day jëmbët ci seeni xol ak cofeel ak yërmaane ci seen diggante ba day tax kenn ku nekk loo soxla ci sa moroom mu mën a jàpp ne bokk na ci li nga xamante ne ci meññetum jokk ak mbokk la bokk mooy li gën a sori ci xemmem téefu ab jullit li gën a sori ci xemmem téefu ab jullit loola mooy lan mooy mucc ci sawara dugg aljanna lii ñu doon waxtaane muy silatu rahim jokk ak mbokk ku ko def ni mu ware day tax yàlla musal la ci sawara tàbbal la aljanna kon eh, jokk ak mbokk mboolem luy tax suñ tey rafet jàkk mi ngi ci biir jokk mbokk gi ni nu ko yàlla sant mboolem luy tax suñ ëllëg jàkk yitam mi ngi ci jokk mbokk gi ni ñu ko borom bi subhaanahu wa taala eh, kon mu mel ni lool lan ne woon mënees na ko tàmbalee aw waxtaan ci tomb bii ñu doon waxtaane muy Cheikhul Rahim di leen baalu xaq te di leen ko baal di ñaan yàlla defar ñu tawfiq te nangul ñu jataay bi te sàmm mbooloo mi sàmm alwafa te yokk leen ay ndam di siyaare mboolem sama sang su baax si fi teew yépp jaare ko ci Serigne naa Mbacke moom Serigne Amsatou mi nga xam ne euh, mooy sunu bunt ci jataay bi ak mboolem mbokk yépp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ maam Thierno noo ngi lay sant bu baax ci turu kuréelu alwafa gépp ñi lay sant bu baax di ñaan yàlla mu barkeel xam-xam bi te yokk ko waxtaan wi kawe na njortu lool lépp lu ci mat a leeral rek mel na ne képp ku diglu waxtaan wi danga ko ci dégg bu baax a baax ñu lay sant bu baax di sant bu baax mbokk yi nga àndal ñu mën cee ràññee sëriñ Abdul Hakim Ka ak sëriñ Ibrahim Guèye ak sëriñ Fallou Samb ak sëriñ Maam Góor Guèye mbokk yooyu nga àndal noo ngi leen di sant bu baax di ñaan yàlla mu fay leen aw yiw kon xam naa ngir njëkkanteeg waxtu wi rek dañuy jox sëriñ Mouhamad Bachir Antañang mu def benn commentaire bu gàtt rek ci li sëñ Maam na doon waxtaane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 yàlla ñu ko sunu borom nangul lépp lu ñu ci def ci lu baax lépp loo xam ne rëcc nañu yàlla nañu ko sunu borom jéggal te soppil na ko ak yiw di siyaare bu baax mbokk yi fi teew yépp di leen nuyu nuyoo bi nag ñu jagleel ci sëriñ Maam Cerno Kan mii doon mii ñu doon defal waxtaanu tey muy waxtaan wu am solo woo xam ne yaakaar naa ne képp koo xam ne ni ko sëriñ Moodu Mbàkke waxee léegi rek képp koo xam ne doon ko teewlu waxtaan wi jariñu nga ci bu baax a baax muy waxtaan wu leer wu tegu ci xam-xam wu dal kon sëriñ maam Cerno ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan yàlla suñu borom mu yokk sa xam-xam yokk sa kàttan ba li nga bëgg liggéeyal ci lislaam yàlla suñu borom defal la ko di niñ ko waxee léegi rek tem bu am solo la doon waxtaane muy jokku bokk jokkuk bokk dafa bokk ci li nga xam ne dañ ko mun da munta ñàkk ndax ku ne xam na ne boo demee ci Eh, hadisul xudsi yi boo xam ne wax na ko wax ne yàlla sunu borom bi mu bindee jaam ñi bi mu bindee doomu aadama yi dafa mel ne kenn ku ne dafa laa bindaale ak ak bokk mu mel ne nag ak bokk dafa mel na lu jooy wax ne man day boo moytul daañ ma gàttañ daañ ma gàttañ lu ma jokk sunu borom xam le ne képp koo xam ne jokk nga ak bokk man sama borom danaa la jokk képp koo xam ne dog nga ak bokk it naa la dog loolu it yaakaar naa ne kon war naa tax ñu bàyyi xel ak bokk loo xam ne boo ko jokkoo sunu borom ci boppam moom la moo lay jokk boo ko dogee sunu borom lay dog kon jàpp naa ne loolu lu mat bàyyi xel la yàlla sunu borom it wax ci alquran wa taqullaha allasi tasaaluuna bihi wal arhama inna allaha kaana aleykum raqiba yàlla sunu borom lépp lu mu lënkale ak ragal yàlla akuk jaamoom loolu woyofu bu ca tegee ne nag war nañoo bàyyi xel bu baax ak bokk ak rahim mbokku jegeñaale képp koo xam ne am nga sa mbokk moo xam ne yàlla suñu borom moo ko doxalee ci sa digganteeg moom nga war koo mën a jokk yaakaar naa ne loolu it kon lu mat a bàyyi xel la ak bokk itam jokk ko am na solo ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne jokku bokk dana tax a gudd fan jokku bokk dana tax a gudd fan te yaakaar naa nit ki lépp loo xam ne dana tax aw fanam gudd loolu war na koo bàyyi xel bu baax a baax jokku bokk it dana tax dana tax dana dana yokk wërsëg dana tax sa wërsëg yokk kon nit ki lépp loo xam ne aw fanam mang ca dana tax mu gudd fan boo ko jokkee sunu borom jokk la dana tax yokk sa wërsëg dana tax gudd fan yaakaar naa loolu jullit bi war na ko bàyyi bu baax a baax te buñ xoolee sunu mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci réew mi ànd ak jamono boo bii jamono jii ci la jamono gën a yaatoo boo xoolee ñoom dañ ko daa jokk bu baax a baax mag ñi dañ daa dem bu ñu xoolee sunu maam alxaaji malik si radiyallahu anhu daana ñëw di seet si sëriñ Touba sëriñ Touba it daana ko seeti maam Cerno Birahim miit daana dem di seeti Tiwaawoon di seeti bokk yi fa nekk bu yàggul rek dëgg nañ ci wax yi sëñ alxaaji abdul asiis si yàlla na ko yàlla doole ay leer mu wax ne day sunu bàyyi Cerno dafa am ay jamono mu ñëw seet si sëñ alxaaji malik si nee na moom booba moom sëñ abdul asiis si nee fa la ko fekk ak magam Serigne Mansour nee na fa la leen fekk loolu lépp day tegtale ne mbokk yi mbokk yi kilifa yi mag yi yëpp daanañ dem di seetante di jokku ak bokk kon loolu yaakaar naa ne jullit bi war na koo bàyyi xel bu baax lu jamono xat-xat ndax jamono kat wax dëgg yàlla xat na waaye teewul nag jamono ji ci la demuwaay yi gën a jàppandee ci la euh, jot gi xëy na amuyut noonu waaye nag waris na ko mën a gën a jokk bu baax a baax daal bu nu xoolee itam ak bokk sëriñ bi nga xam ne mooy Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu anhu di suñu yaakaar bàyyi xel la nam sëriñ Maam ñëw na ci ci lu bare bare bu ngeen xoolee ci mbindam bari na lu muy bàyyi xel lool mbokkam gis nga mu ngi wax ci xasi xasida gu ñu wax Matlabul Fawzayni nafsi wa diini suma ahli wal walad wa maskani lakka wa dihatun abad foofa la ci ñor mooy suma ahli nafsi wa diini suma ahli suma ahli sama ñooñ bu dee sama ñooñ nag képp koo xam ne yaa ngi wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah yaa ngi ci biir waaye nag dana bàyyi xel lool it nag ka gën a jege ndax ka gën a jege moo gën a yey ndax boo xoolee ci la madla ci xasida madlabu sifaay mi ngi wax wajhal jamiha ixwati wa nasabi fii rahmatin yowma stidaadi nasabi yow sama borom bis boobee di bisub tartar bi ëllëg muy bisub yamal xiyaam bi bu ñu ci accédé maa ngi ñaan maa ngi lay ñaan yow sama borom sama samay mbokk nga musal leen ci tartar yooyu waccal jëmi ixwati wa nasibi fi fi rahmatin yow ma siddaati nasabi bis boobee daal maa ngi lay ñaan nga yërëm sama mbokk yi nga xam ne samay mbokk samay mbokk jege ñaali lañ waaye boo xoolee sëriñ bi bu waxee mbokk yi jege ñaali yi ba nag ni ko waxee léegi dafay laafaale mboole mbokk jullit ñi nag day tuddaale mbokk jullit yi yëpp di leen bàyyi xel kon daal mbokk yi nañ bàyyi xel tam bi sëñ maam Cerno doon waxtaane bu baax a baax wax ji am am na solo leer na nañ ni ko suñu maam nu waxee euh, kon dal jokku bokk moom nit da ko mënta ñàkk ndax gis ngeen ci njëlbeen gi sax addis bi mu ubbee na ngeen jéem a xam lu seenu bokk ndax ngeen mën koo jokk na ngeen xam lu seenu bokk kenn ku ne war a ràññee bu baax ñi nga xam ne ñoom la ko yàlla suñu borom booleel ndax kenn ku ne mbokk yi nga xam ne moom la suñu borom dogal ñu suñu borom bokk bokkale la ak ñoom yow tànnaloo ko suñu bopp sa borom sa borom suñu borom subhanahu wa taala moo la ko tànnal kon bi la ko suñu borom tànnalee nag war nga koo jiima xeñtu bu baax a baax ba xam ne diw mii kat nangam lañ bokkee nangam lañ bokkee nangam lañ bokkee ndax nga mën koo jokk waaye loolu lépp nag ànd ak loolu nag bokk gi nga xam ne mooy bokk pas-pas gi sëñ maam Thierno wax na ko ci biir waxtaanam mooy liñ war a gën a bàyyi xel bu baax a baax nag innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axwaykum wattaqullaha laalakum turhamun innama moom bi ko yàlla suñu borom waxee kenn génnut mboolem ñi gëm yàlla kon génnuñu ñun ñi gëm yàlla ñëpp kon yàlla dañoo ràbbale ci ñun ñëpp ay mbokk lañ kon kon mbooleem julit ba nekk ci sarx ba nekk ci xarbu ba nekk ci simal wala ba nekk ci junub mboolem ba adduna bi daj yëpp kon jàppal na kooku sa mbokk la julit ba nekk siin julit ba nekk Amérique julit ba nekk Philistine julit ba nekk Arabie Saoudite ñun ñëpp kon say mbokk lañ lan moo nu bokkale mooy li ko suñu borom rabbi ne innamal mu'minuuna ixwatun ñun ñu gëm yàlla ñëpp ay mbokk lañ kenn génn kon loola kon moo gën a mat a bàyyi xel bokk pas-pas googu kon kon foofu julli ab nekk nekk ci àdduna bi rek ñun julli ñëpp dañoo war a jàpp ne suñu mbokk la yëg-yëg bu mu bu mu am lu mu am ci ci naqar dañ ko war lu am lu am ci naqar dañ ko ko war a ànd àndale ak moom lu mu am ci ci ci ci bànneex bànneex boobu dañ ko war a ànd ak moom kon loolu ab julli da ko war a bàyyi xel baax noonu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ci hadis ba ne ñun ñun jullit julit ñi day mi ngi mel ne benn benn kii lañ rek benn jëmm lañ rek joo xam ne ji jullit julit lu lu yëg-yëg bu mu am ci yaramam métit wu mu am ci yaram wi lu mu yëg ciw metit métit woowu day mel ne dangaa laal julit ñi ñëpp kon daal mbokk yi ak mbokk tem bi tem bu am solo la nañ ko teewluwaat bu baax a baax yaakaar naa ne ci jumtukaay yi doon jokko yi ko doon jàllale bari na lool kon kenn ku ci mën nga faa demaat ci ñi ko ñi fekke wutoon jataay bi nafar ko fa bàyyi ko xel baax xam ne lay sunu borom ba bàyyi na xel bu baax a baax bàyyi bàyyiloo na leen xel bu baax a baax ak bokk sunu mag ñu baax ñi sunu kilifa yu tedd yu baax yi itam ni ma ko waxee léegi muy mboolem kilifa yi yëpp dañ daa dem lente sëriñ Xaadi euh, Touré mbokk xaritu borom daaru lool woon di mbokkam di fi ñëw fii di ko seetsi borom daaru it dafa yebal ay ndaw ñu fay dem ñu koy jokk ak mboolem jullit yi ci kër yi yëpp noonu lañ noonu demee mboolem mbokki jullit yi ni ma ko waxee lépp ci kër yi fii ci Sénégal ñoom ñëpp dañ daa demlante di tuddante ay doom di jëlante ay soxna seen biir ngir jokkaloo bokk li ngir jokk jokk jokkale bokk gi kon daal bokk yi ak bokk am solo la noonu ma ko noonu ko sëñ maam Thierno waxee léegi rek ci biir waxtaanam muy loo xam ne kenn ku ne yàlla suñu borom moo la ko tànnal waaye ba mu la ko tànnalee daf laa wax ne la na nga ko jokk loo xam ne suñu borom nee na boo ko jokkee ma jokk la boo ko dogee ma dog la kon loolu moo ta bàyyi xel la yëg-yëg bu bu ab jullit am itam mbokkum jullit mu ci ne yëg-yëg boobu da nga ko war a moo xam lu mu sori sori moo xam lu mu jege-jege yëg-yëg boobu da nga ko war a bàyyi xel ndax noonu ma ko waxee léegi ci aay boobu nga xam ne yàlla suñu borom moonu rabbali ñu ñëpp boole ñu fu fi jullit nekk lu mu sori sori rek mbokk ga benn la kon nañu bàyyi xel tam bi bu baax a baax lu am solo la moo tax tey mu assatu Wafa ci liggéeyam bu rafet ci bàyyi xel bépp tem boo xam ne bii jullit ñi daañ ko mën a jariñoo ci suñu dund mu andi ko loolu tax mu andi tam tem bu am bi tey muy silatu rahim kon daal mbokk yi ñi ngi rafetlu waxtaan wi bu baax di sant sëriñ maam Thierno ci waxtaan wi ak mboolem mbokk yi mu àndal yépp di ñaan yàlla suñu borom mu defal ko kàttan defal ko bépp jullit di ñaan yàlla suñu borom defal ñu tawfeex ñun ñëpp di sant mu assisatul wafa bi fa xooxil imaan ci waxtaan yu am solo yi nga xam ne moom lay taxawee di ñaan yàlla suñu borom yàlla ñu defal tawfeex koor gi lépp lu ñu ci def ci ni ma ko waxee léegi ci njëlbeen gi ba ci digg bi ba ci mujj gi lépp luñ ci def lu baax yàlla ñu ko suñu borom nongul lépp luñ ci rëcc yàlla sunu borom mi nga xam ne dara tëwu ko yàlla ñu ko soppal defal ñu ko yow defal ñu jàmm ak salaam jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Sëriñ Modou jërëjëf ci commentaire bu am solo bi nga xam ne toftal nga ko ci ginnaaw waxtaanu Sëriñ Maam Thierno bi lépp rekk di teg ki am solo goo xam ne thème bi. am na ko solo waaye bàyyi xel goo xam ne mboolem kuy ab jullit ak fa mu mën a nekk ci àdduna war na koo bàyyi xel salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. النصر والمدد أهلا